الكتاب والحديث انصرفا قلبي وخالفي بمجد المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وخالفي بمجد المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وخالفي بمجد المصطفى الكتاب وخدمة المختار في فتى

alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mbokk taala wa barakaatu. Euh, ngi amaat mbégte di santaat borom bi subhaanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sunu yaakaar ci Seyxuna Ahmadul Xadim di ñaanalaat kii fi nekkal Serigne di Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko ok tey ñu yendoo ak mbégte waaye yendoo ak sant yàlla ci jataay bii nga xam ne jataay boo war a am la ba noppi am te daan am muy sëriñ Habibullahi ibnu Cheikh Mahamadul Fadal jéego yi mu yëkkati di ko jóge ci këram di ñëw ci këram di yëkkati jëmmam di fi fekk jëmbam ñëw ci kër Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdul Xaadir di rakkam ñu bokk ndey bokk baay waaye yooyu yëpp xaritoo itam nag waaye muy jéego yoo xam ne nag li sëriñ Habibu di faral di wax buy jóg day wax ne lépp sëñ Tuubaa lay doon ndax liñ mën a bokk lépp buñ ko bokkee te wut am cër bu sëñ Tuubaa def ci moom te cër boobee dama koy suuxat waxtu wu ne ndax lépp luy tax ñu yab yoon wi du bàyyi ko ci bul waaye loolu moo fi fekk nag kii mu fekk pas-pasam boobu rek la yore ci sëriñ Tuubaa muy ni koy faral di waxe Cheikh ba Basir bu fekkee ne ci jikko ju rafet nga koy tagg da nga fekk ne ci borom makaarimul axlaax yi lay bokk te bokk na ci tedd ngay jikko mooy wann sa mer ak di safoolu la soof ak di jéllale tey jéggale te yooyu ma wax yëpp ku ko jàngat ci jëmmam danga ko gis ci moom ak lu ngeen mën a seq tam bàyyi ko ci yow nga wax ko ko baa nga def ko doo jàkkaarloog Cheikh Mouhamadul Basir ba xam ko ci xar kanamam doo ko jàkkaarloog moom it ba xool ko ci la mu war a jëflanteeg yow. te lépp loo xam ne pas-pas la buy dëgëral ngëm ci Serigne Touba boo diggee danga fekk na ci loolu la. loolu nit ñi wax ne sariya jëmu ko amul wenn waxtu julli woo nekk ci wetam te ne waxtu wu julli na ko ci waxtoom ba noppi jiite la ko te waxtu wu ne yaa koy njëkk a wan ginnaaw penku bi loolu dana tegtale na kon li muy def lu ko ñor la waaye nag teewut dàkk bëggug Serigne Touba di ko liggéeyal ci doomu aadama yi sëriñ Fallou nee na woon topp yàlla ak jaamu yàlla bokkunu topp yàlla mooy li la yàlla digal ca jaarale ko ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nee na sañ bañ la. jaamu yàlla nag danga koy jaamu ci jaami yàlla yi kenn nattable wut ne mi ngi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi kon noo ngi ñaan suñu borom gën koo guddal aw fanam gën a dolli ak wéram waaye yéenay mag ñi ak seen yaakaar yàlla na ko yàlla dëppale ak man-manam. ñu am mbégte lool tey ci jataay bi nga xam ne Cheikh Habibullahi yendu si na ko fi moom ànd ak bokk yépp te bokk gi di genn bu ñu àndee kër waa Kër Ñang fekk fi waa bi fekk fi itam askan yëpp danañ xam ne loolu rek moo war a am. amu ci benn bunt kër booy dem ci seen buntu kër yi du dut ne da fa fekk dàll yu bari yu wuute ci barab yuñ bàyyi ko loolu kon day tegtale ne rafetuk jikko ak mën daloo ay nit rekk la loolu moo tax jataay bii. danañ fob kaddu gi jox ko Serigne Moustapha Jatara mu yëkkati ay kaddu yu cant ci turu Serigne Cheikh Mahamadul Basir bu noppee Serigne Saliou Niang dana yëkkati ay kaddu ci turu Serigne Habibullah waaw wala balay booba nag Serigne Saliou Mbacke mu Serigne Amsatu dafa am ñeenti bayit rek ni ko mag ñi daan defee ku ci masaa seeti sa morom daa nga bind ay bayit ba fa mu bind ay bayit jox la mu ne dafa am ñeenti bayit yu mu bindoon ci jataay bi su ko waxee ba noppi rek ñu bàyyee kaddu gi ak Serigne Moustapha Jatara bismillahi irrahmaan irrahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi sayidina wa mawlana muhammadin al wa ala wa sahbihi wa xeyri xadimihi wa ummatihi ajmain bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax di jégalu kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci sunu kanamu kilifa yi waaye nag euh, xol moom daa doon loo xam ni lépp lu ca feeñ rek mën naa génn ci aw làmmiñ te dañ koo daganal ba tax na ñu ngi leen di dogal ngant di leen jégalu ñu am mbégte lool ci jotaay bi yëg ci sun bopp yëg yëgit ni sëriñ bi léegi laa koy waxtaanee ak sëriñ Abdoul Ahad mii sama xalifa bi ma ne ko boo xoolee jotaay bi ni mu tëddee ak ni mu bindoo rek danga xam ni sëriñ Tuubaa mi ngi fi ndax kenn ku nekk yaa ngi ëffal sa bopp wa yusiruuna ala anfusihim walaw bi bihim xasaas yooyu alxuraan di wax loolu nag moo feeñ ci sama xol moo tax ma def ci ñeenti bay yi damaa wax ni muhammadul habib muhammadul habib ibn al fadili qad nasalat daar al habib an naabili muhammadul bashiri man qad fuddila bil xalqi wal xuliqi inda al fudala dama ni cheikh muhammadul habib ibnu cheikh muhammadul fadal wàcc na fii ci kër wàcc na fii ci kër cheikh muhammadul bashir di gan cheikh muhammadul bashir mi nga xam ne ku boroom borom dénk am xel la xel mu rafet nag weesuwut euh, dajale say bokk kenn ku nekk ngay jëflante moom ci jëflante ba yàlla te kenn ku ne da ci gis sa bopp te kenn du mer te damay wax ni li tax sëriñ bi fab ko dénk ko lim ko dénk loolu rek la ndax jikko ju rafet mooy lépp ndax mboolem ponk lislaam yëpp euh, li la ci yàlla sant boo ko ci defee ba noppi muy ñëpp a koy def ndax garab yi sax dañu jaamu yàlla wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum waaye nag laneen li nga xam ne la nit di mën a nit mooy jëflante nit ñi ci jëflante bu rafet kenn ku nekk di ca gis sa bopp mooy jaamu yàlla ci nit ñi loolu moo tax xel mu rafet moom moo tax sëriñ bi dénk ko li mu ko dénk te loolu yaakaar naa képp koo xam ni sam xel rafet na ngay nituk dëgg danga nangu loolu euh, ma wax ni diyaafatun tuzakkirul ajyaala hadratal kiraamisul ahwaala ak ngan la goo xam ni boo toogee rek dana la fàttali mag ña seeni doxin ndax ay boroomi xam-xam ñoo fi daje ak kilifa bàyyi koo ci barab yi foccanti te kenn ku nekk yàlla rek moo la fi bàyyi te kenn ku nekk boo xoolee xar kanam am na yaatu akuk mbégte akuk béll goo xam ni danga nga da nga yëg ni kii bég na lool ci bis bi wax wa ata bi kulli ma xad xalla wa kulli ma bihi mbusoobe sa ala damay tooñ mbusoobe <laughs> ma ne ngan gi lépp lu dagan rek lu yàlla daganal andi na ko ci biir teew na fi rawatina li li mbusoobe yi soxla <laughs> kon nag ma ñaan ni allahu yoxtiikum dawaaman nicmatan maa albaqaa'i wan najaa wa yal na saa boroom jox leen xéewal gu yaatu ak ak wér ak guddu fan bi jaddikum cheikh xadimil moustapha salla alayhi manit tabaahu wastafa ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci turu cheikh jiital ci nuyoo bi cheikh mahamadul habib mi nga xam ne moo gana si tey ngan sax duñ ko tuddee ngan moo ñëw këram du ngan kër gi mu ñëw mooy këram li fi borom kër gi sañ rek la fi sañ ñoo ci yem waaye nag muy loo xam ne moom Cheikh Mouhamadul Bachir dafa fees ci xolam te da ko neex lool di lu réeréer it ci moom ndax kat e, lii dafa doonoon loo xam ne ni ko sang bi waxee léegi aada woon ci mag ñi fi newoon mag ñi fi newoon yu mel nii bari na luñ defar ci ci diggante lu mel nii lañ ko defaree bari na it fu yoon wi egg nag te ci ngananti yi ak jotaay yu mel nii ci la ci egsi ndax mag ñi dañoo gëmoon ne am na ñoo xam ne kër gu ñu wàcc rek am na lu fa yàlla wàcc ànd ak ñoom am na ñoo xam ne kër gu ñu wàcc yàlla dana fa wàcce loo xam ne nit ñi duñu ko gis waaye ay ruuxaaniyaat lay doon yoo xam ne sunu borom moo ko fee bokk na ci li nga xam ne Cheikh Mouhamadul Fadil radiallahu anhu mu gane jee kenn ci nit yàlla yi yaakaar naa sëñ Mat Saxeer Mbay rek ba mu egsee sëñ Mat Saxeer ni mag ñi daan def rek nii nii nii mu def léegi nga xam ne ñoom seen ganente fokk rek nag yu mel nii am ci fokk ay bayit am ci nga xam ne moo doon sawaayit yi nga xam ne sax taarix ba léegi loo ci dikk rek da nga ci fekk dara bi mu egsee sëñ Mor Saxeer daf ko daal di sadd ay bayit yu doy waar yu rafet te it moom waajal na ko moom li mu koy def waaye ki mu koy sadd nag moom mën naa am fi saa si la koy door a dégg loolu nag lu jafe la lu jafe la bi mu egsee mu ne lillahi qawmun ida xallu bi manzilatin xalla nada wa alat fi ljawbi anwaaru tashaaquhum kullu ardin yanziluuna biha ka annahum bi biqaa illahi amtaaru am na gaa yu baax yoo xam ne day kër gu ñu wàcc dañ fay àndaale tawab yërmande tawab mbégte tawab tawféex boo xamante ne fu ñu egsi rek mu tooy xepp ak yërmande ak tawféex loolu nag daal ko yow sang bii ci ñooñe nga bokk muy bàyyi sa bi bu mi moom loolu wax loolu ba mu ko ko waxee ba noppi mu wax ci saasi rek bindul moom itam deful dara mu daal ne ko iza laqitahumu aw kunta zairahum bi yumnihim faaraqat ka dahra aw zaaru ah man de ñooñu ngay wax ne fu ñu kii waxuma la nga ñu dikk siyaare si la waaye boo dajeeg ñoom ci mbedd mi rek ñu faj sa aajo seen barke foo dajeeg ñoom ñu faj sa aajo daal ne ko nag is bi ziyaarati muy lii am tey is bi ziyaarati talqa kulla mukramatin wa yantafi bi liqaa il faqru wal aaru yàlla na ko yàlla defal mu ne ko nag ci ziyaare moom ci la nit di amee teraanga teraanga ji nag li sëñ bi doon wax léegi ci mooy kaw gi waaye baatin bi nag moom leneen la ndax nee na baatin ba nag mooy faqru aaru muy gàcce ak ñàkk ki ñëpp ragal ñun ñëpp yàlla nu ko yàlla defal te nee na ko woon loolee nag ziyaare dina ko indi te man jàpp naa ne ziyaare bii kooko ci fas yi noonu ñii ñëpp suñu borom dana ko def ndax ñaari ñi ko séq dañoo séq lépp dañoo séq ak bokk te ak bokk di lu foor loo xam ne ëpp naa sàggane ndax day loo xam ne suñu borom pas-pasub suñu borom yàlla ko fas doomu mën na koo ñaawal waaye mënu koo dindi doomu aadama mën naa koo ñaawal waaye kenn mënu ci dara ndax pas-pasub yàlla loolu nag mu dox ci seen diggante te sunu borom it digle na nañ koy sàmm ñoom ñaar lii ñu def sàmm ndigalal sunu borom la topp it ndigalal sëñ Tuubaa la ndax sëñ bi kat lu fonk fonkoon yu mel nii la yu mel nii dana ko defal boppam dana yónnee ay nit ñu def ko bu jataay bi guddoon itam loolu lépp ñu waxaale ko ci waaye kon day mel ni rek sëñ Mouhamadou Bachir bu xelam xolum sedd na sedd boo xam ne ci mbokkam mii ñoo bokk de ndax nit mënut a taxaw di tagg mbokkam ndax day niru leneen waaye nag ah wax dëgg wa ma shahidna illa bi ma alim na nit ku ne sañ na li nga xam ci lu baax ci nit nga wax ko kon moom mi ngi wane ne moom mii di sëñ Habib eh, ñu bokk li ñu bokk waaye moom day waxtu wu ne mi ngi damu ci moom xoolam mi ngi sedd ci moom itam ndax qualité yi ak melo yi nga xamante ne yàlla defal nag ko te loolu itam muy woyof lool am lool nekk nit koo xamante ne itam ku dëggu la koo xamante ne àdduna sëpp moom qualité yooyu bu ñu ko waxee du raayal gannaaw du dëggu la loo xam ne ku ne mën nga jël ci sa lopp sa baaraam ku dëggu la ku woyof la nit la koo xam ne itam lépp lu muy wax ci àdduna rek lu mu gëm la loo xam ne itam loolee waxu ko ngir lu neex kenn waaye da koy wax muy dëgg rek loolu ñëpp xam nañ ko e sunu borom itam dénk ko loo xam ne muy cër bi mu ko dénk tey ci dëkk bi muy liggéey boo xam ne ñëpp a koy seere ku ne gis na liggéey boobu man de damay wax ne eh, sëñ bi bokk naa ci mbootaay gone ci Touba ndax fii laay juddoo waaye mbootaay gune bokk naa ci dem naa ba ne dootuma bokk ci genn nag banaa waaw démissionné naa ci lépp lu may defati daal danaa seet man nu ma koy defee waaye kii daal wax dëgg yàlla bi ma ko gisee léegi gis naa ne lii moom wax dëgg yàlla kenn ku ne mën nga cee bokk te leer na ne li nga ciy defit fa mu jëm xam nga ko kon ñu ngi ko ci sant loolu itam lu am solo loo xam ne fu mu teew mënuñ koo ñàkk wax ndax jëf mënu su ko ñàkk wax waaye Cheikh Mamadou Bassir moom mii itam ñun ñëpp ñu xam ko ñun ñii nga xam ne day ay mag lañu ba noppi nag mën a ànd ak moom am na lu tax de ñàkk ñu fula de am na lu tax de danoo gis ci moom loo xam ne kat wax dëgg yàlla bariwul lu ñu koy gis rawatina ci fii mu toll ci ay at mboolem axlaaq yii ñu fi wax benn boo ci seet mu ngi ci moom muy nit la koo xam ne ku gëm sëñ Tuubaa la loolu mën naa ko seede moom ku gëm a gëm a gëm Cheikh Ahmadou la daanaka dafay mel ni sax gëmul ko xamee dëgg-dëgg ñaareel bi nit la koo xam ne ku am yërmande ci doomu aadama yi la maanaam doomu aadama jenn joo xam ne sëñ Bass dana ko gis te jàpput ne njabootam jàppee ko ni njabootam amul bi ci des itam mooy nit la koo xam ne ku fonk ay kilifaam la ko fonk fonk njabootu ay kilifaam gii fonk na rek ko kum ci mës a gis fu mu toll rek yow da nga daal xam ne kee kilifaam dana dem foo xam ne du fa wane darajaam du fa wane ni mu toll du fa wane li mu yor waaye moom day xool li nga xam ne moom la war a def rek ba nga xam ne foo fu ngeen mën a fu ngeen mën a toll rek yow da gën a jàng ci moom sax da jàng ci moom ni nit di fonkee kilifaam loolu itam nekk na qualité yoo xamante ne mi ngi ci moom loolu nag tey jii bu fekkente ne bokk nañ daje fii ñun ñëpp nu bokk fi daje di ay taalibe ànd ak ñoom ñii te ñaan yàlla nag ànd bi yàgg lool nag di jëm kanam ba faw nu ànd ko ku baax kii nga xamante ne mooy seen mag di Cheikh Mouhamadou Mountakha ku baax kii nga xam ne yàlla ko fi yàlla borom axlaaq yii nga xam ne wax dëgg yàlla delloo siwaat na lu ñëpp tiitoon xamatuñu woon fu ñu koy jëlee muy Cheikh Mouhamadou Mountakha delloo siwaat na jikko yi sëñ Tuubaa delloosiwaat na jikkoy mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon delloosiwaat na itam pas-pas akuk taalibe gu leer nañ goo xamante ne ñëpp a ngi koy gis loolu yi nag ñoom ñi mu ànd kook ñoom ñu ànd kook moom yéene ko ko lool ànd ci ak moom lool ñu ñaan yàlla loola yàgg lool ba ba ba yii ñuy naan yëpp egg ñuy tàmbaliwaat yeneen ak yeneen ak yeneen ndax kat nii mu jógee kat ñu ànd ak moom ah loolu de li ñuy tuddee li arab di wax da mooy luy lu bees luy jóg loo xam ne kanam la jëm loolu ñëpp teg nañ ci seen bët ci wàllu gu ne nag loolu yi nag ñoom ñii ñooy ñi ko ŋànk kon yal na yàlla eggale lépp sëñ bi nag nee na mi ngi sant ñëpp wax ji warta gudd lool maa ngi ko ab jàngalekat dafa bari wax rek <laughs> jàngalekat moom ñaari ñoom la ko yàlla bindee waaye nee na mi ngi sant ñëpp ñëpp lañ bëggoon tudd seen tur waaye boo limee rek daal di xaw a doy waar waaye ku mel mag mu toll ni sëñ Maxtaar Jaxate mii toog àndoon ak sëriñ Saliou nekk ci wetam nga xam ne jëmmam rek bu nu ko jisee suñ xel day dellu ci moom ba Bachir mii day ànd ak moom te xam nañ li tax muy ànd ak moom léeg-léeg mooy ndeysaan dafa fonk sëñ Saliou bëgg ba nga xam ne moom bu àndee moom rek mu dugg ak moom ci oto bi képp jàpp na ne mi ngi xelam mi ngi ànd ak sëñ Saliou ba léegi loolu itam mu ànd ak sëñ Saliou Jaxate ak bokk yi ñi fi nekk yëpp bu ma tuddee damay bu ma limee damay juum waaye nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwul kenn kuñ tudd it yàlla moo dogal tudd nañu la rek waaye fekk na xelam ak xolam lépp mi ngi ànd ak yow eh, di ñaan jataay bii nag yàgg lool di am ay jataay jataay jataay te bu dikk rek gën moroomam incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu yi ñëw la fii ci barab bu tedd bi ñu ngi lay nuyu ci turam nuyoo ba gën a sell nuyoo ba gën a màgg ànd ak ma ci turu sëriñ Abib mi gannaaw bu ma leen nuyoo nag ba pare damay nuyoo sama bokki taalibe yi nga xam man ak ñoom ñoo bokk nekk kër sëriñ Saliou ma di leen fi gis ndax man mënuma dugg fenn te jaaruma foofu ba pare ndax bu ma mënee mel nenn bay toog fenn rek yàlla ak jëmm ma tax boo xam ne juróom-ñaari at ci lañ la ko jox nga am ci moom ñaar fukki ak benn saa yoo gisee ko la koy fàttali rek da ngay fàtte ñëpp te fàtte lépp tax sëñ Matar ñu ngi lay siyaare bu baax yaa ak sëñ Saaliu Meer ak sëñ Fallu Jatara ñu leen di siyaare bu baax tey siyaare mbooloo bi fi nekk ñëpp tey wax ni sëriñ Basiiru dafa am kàddu cant yu ma sëriñ Abibu wax ne naa ko sant waaye nag ci turu ak bokk la ma ko sant loo moo tax foofu rek lay mën a jaar ndax wala fi dañuy wax ni bu ne ah, diw bëri na xam-xam dañ ne ndax borom xam-xam yaa ko wax bu ne diw kat ku baax la dañ naan ndax bokk yaa ko wax waaye li wér wér mooy ñun ñi nga xam ni ci bokk la ñuy wax yéen te jëlee ko ci soxna bu Socé xam moom meññ seen ñaari waajur yi yéen ñu baax ngeen. te loolu it waxuñ ko ngir dañoo toog ci seen kër añ seenub añ. mu neex ñu jàkkaarloo yéen ci kersa ruus leen di leen ko wax. déedéet bu leenoon amoon it xamoon nañ ni buñ fi ñëwee danañ ñu wax loo te buñ ñu wax loo ñun mënuñoo ñàkk wax lu dul dëgg. te buñ xamee ne buñ fi ñëwee wax lu du dëgg bu ñu fi woowee duñ ñëw. waaye yéen yéen ñu baax ngeen. loolu rek lañ xam ci yéen yéen ñu baax ngeen. ndax lii nga xam ni sëñ Fallou Sylla mii njëkk a wax wax na ko ci yow loolu waxuma la jullit yi waxuma la mbindeef yi waaye jamaa daal yi sax seere nañ ko sa bëri yitte sa bëri kers sa bëri jàmm sag dal sag attan lu diis nag nga yenu ko ba pare mel ni ku yenuwul dara ku la gis ku nekk loolu da koy xam ci yow fekk yàlla dogal na mu xam nit képp koo xam ni wax na ci yow ab safaan daf laa umpale ni mu umpale màggoog suñu borom bi waaye ku jàkkaarlook yow dana xam ne benn safaan nekkul ci yow ndax du ci judd du ci yar du ci jikko benn boo xam ne nekk na ci yéen ñaar ñi tey lii dama yéemu ma ndax ki tax ma ñëw fi jël fi kàddu muy ci turu soxna bu sa moomu dama daan dégg muy wax lu bëree bëri ci yéen ndax wax nañ ni ca ba ngeen gënee nekk euh, tu tànk sëñ bés mi ak sëñ doo xam dañ faa mës a ñëw moo teg leen ci kaw lalam bi wàcc bi waxtu añ jotee mu jël kër raxasu bi di leen ko jox neen raxasu leen ñu ne ka ah, yaw de yaa jur suñu waajur wu jigéen yaa ñu mag kon mu ni loola def ko àll mu ni leen yéen fu ma leen di magee sëñ Tuubaa daan ne jaamu naa yàlla nangami junniyaat mu doog a bind aadama te yéen ngeen soqi ko ci ah, ci sëñ Tuubaa man fu ma leen di magee yéen kenn magu leen kenn nit gënu leen ndax képp koo xam ne am nga tomb mbaax ba toog ci sam penc wala sa ruq di ko ndamoo ba man caa noggatu ñeneen ci seen baax gi dong la jóge jógewul feneen ci seen baax gi dong la jóge la doon suñ jafe-jafe nag mooy ñëpp ne baax ngeen te man mii toog jàkkaarlu yéen xam ni baaxu leen keneen xam ko loolu moo doon suñ jafe-jafe di seen jafe-jafe yéen it ndax boo ëllëgee si biir lii document la boo xam ni lii ñuy wax dañ koy présenté seen maam te da koy vérifié bu boobaa luñ ci luñ ci wax te nekkul ci document ba loola kersa lay doon ci ñun ñii ko doon wax kersa lay doon ci yéen ñi ñu ko doon waxal waaye waat naa ci yàlla ni bu ngeen fa demee de dara lu leen ci benn da duñu am kersa yéen du ngeen am kersa loolu moom leer nañu nañ ndax li ma la wax ne bu ma wóor na ma ne bu ma àndeeg bi ñëw fi dana ma wax loo te moom mii xam na ne du wax du ma wax lu du dëgg te konoon dama koy dogal ngant ne ko damay dem ndakaar wala damay dem feneen ngir bañ wax lu du dëgg xam ne bu lii may wax nag dëgg la moo tax ma ñëw nangoo jël kàddu gi moom mii di sa mag nga xam ni yéen a bokk sëñ Tuubaa yéen a bokk ndey bàyyi nit la koo xam ni yàlla mi ko bind rek moo xam lim doon. ñun ñuy jëflanteek moom it dañuy ànd ak moom ci kem lim ñu may ci darajaam rek ñu àndi ci ak moom waaye li nekk ci ak mbaax ak wayefal boppam te sëñ sëñ sëñ Tuubaa loola sëñ Saliou lim ñu daan jàngal mooy nangu leen a wayefal seen bopp ba dugg ci lal gi waaye bu leen nangu ku leen force dugal leen ci loolu moom. waxtu wu nekk dama koy dégg muy wax ni nit ku nekk fukki jikko la ko suñu borom bindee da ngay seet benn ba nga ci mën a àndeek moom nga àndeek moom loola nag yor jikkoy Sëñ Tuubaa bëgg a defar te bañ a yàq moo tax mu mel muy wax loola te képp ku bëgg a defaral Sëñ Tuubaa ndax Sëñ Tuubaa fekkoon dafay bi muy ñëw dafay fekk ñu bon ñu baax wut si fi woon dara li lii ndamam te mu koy diggee waxtu wu nekk di wax ni danaa ko bàkkoo bu ëllëgit si biir danaa jël ay nit ñoo xam ne danaa leen présenté ci kanam sama borom ñoo xam ne ay modèle lañ te loolu mën a defar moo tax mu def ko seenu mën a defar moo tax ñi ñëpp góor ci seen kanam sukk nangul leen di déglu koo ci xool nga xool ko rek da ngay gis ne xar kanamam bi mbégte la ndax dafa am léegi lu may yéem ci sàppi su njëkk si bi ñuy julli damaa gis sàppi si xaw a xat ba ci yàgg ma xaw cee mer ba ci àgg ma ne déedéet ñaxatal sàppi si cofeel ak xir gu ñu am ci yéen moo tax kenn ku nekk bëgg a dend ak yéen loolu rek moo waral loolu waaye ñun de ñi nga xam ne dañoo jógee ci soxna bu sa topp ci seen gannaaw maanaam loolu mbégte la moo xam ne ñun mënuñ ko mënuñ koo taxaw di ko di ko misaal ni mu toll. ndax dafa mel ni rek ci buñ ko doon misaal man ci sama mbégteem xol dafa mel ni ku maroon rek wëlbatiku gis dex ci sa wet gis géej ci sa wet gu la ci neex tànk naan. mbégte moomu la ñu am ci bokk ak yéen ku bokkut ak yéen bëgg naa bokk ak yéen. yéen seen tur képp kuy dox ci. mbiri àdduna yi ba tudd seen tur képp mbiram lijjanti ko ku ne sañ ba sama lii la dong wala sañ bi bu sama lii la dong mbiram lijjanti ko loolu nag bu doon succès la doy nañu ñun sëkk sëkk succès te loolu bokk ci sëñ Tuubaa moo ko maye waaye nag jikko ju rafet ju ngeen jikkoo moo moo ko peintre ba mel na war a mel ndax tabax bi mën naa dëgër lool ñu defar ko ma mel na war a mel ndax Sëñ Tuubaa lu dëgër a dëgër la bu doon fondation tabax la bu dëgër a dëgër waaye lii tax nag ñuy tudd Sëñ Tuubaa di la xemem dëgg-dëgg mooy pent gis nga tabax bi fu ne peinture nañ ko dessin ko fu ne loolu mooy jikko yi ngeen yor ci Sëñ Tuubaa moo moo moo rafetal seen Sëñ Tuubaa gi moo tax sëñuñ leen a bañal damay dégg sëñ Mor Bousso mi muy wax ni sëñ Abdou Karim leen rek la daan wax mooy sëñ Tuubaa ñun dañ ko ameel bor buñ ko banta fay mm-hmm. kon nag bor boo ko amelee nit boo ko gisatul da koy jox way doon te yéen yéen a doon sëñ Tuubaa ñun daal na ngeen xam ni bokk gi moom luñ bànneexoo la jikko ji ngeen yore luñ bànneexoo la waaye taalibi gi nga xam ni yor ngeen ko ñu di ko royaat ci yéen moo ñu ëppal njariñ ci loolu yàlla mi nga xam daal mooy sàmm ab jaamam yàlla na leen sàmmal boppam ci gën gaa rafetu kaaraange yàlla xam ni ku mucc moo la musal yàlla na leen musal tayit euh, ragal naa ne mucc dana am ndax fekkee li ngeen war jariñ nit ñi yéen leen koy jariñ ba pare muñ seen lor yi li waroon a ñëw ci yéen yàlla da koy yëkkati teg ko ñeneen waaye yéen moom da ngeen mucc incha allahu rabbi kenn amut seen fay ndax lii sëñ bi def ndax bi mu ñëw daa bii ci guddi la ma ne ma damay xëy dem kër sëñ Bass bu ma sañoon nag bu may jóg damay ànd ak sama bokk yëpp ca la wooyee Cheikh la mais di sama nijaay mu ñëw représenté fa mboole représenté fa mbooleem ko dëkk mbaakol woo sëñ Mor Boussa mii mbooleem ko aju ci soxna bu Boussa rek ci wàll googu ca sant bu mu ñëw woo sañ jiili mi nga xam ni mooy sama kilifa mooy sama mag mboolem ku aju ci soxna bi ci sëñ Seex rek mu ñëw loola nag ñii laa koy wax waaye yow xam nga ko ndax koo ci gis rek da xam loola la muy tekki loola ab bind la bu muy jàngale ku am sa mbokk nii nga ko war a téye waaye ñun ñiit nii lañ war a toppee ci seen gannaaw loola rek la ñu jubloo jàngal wasalaamaaleykum wa rahmatullah naruma sax woon a uh, sànni kàddu moo taxoon ma wax sëñ Moussa Diatara ne ko mu jot li may kàddu cant ak i ngërëm jëmee ko ci sëriñ Abibu li ko waral it may kenn du sant sa bopp nit du gërëm boppam tax falaatu zakku anfusakum jooju alxuraan di santaane bu ma ko defee bu ma santee sëñ Abibu demeen dama tàbbi ci biir loolu waral wax ji diis ci lii itam nii nga ko waxee ni ko sëñ Fall mi waxee bi muy ubbi doonut lu lu lu jëkk am waxtu ne lu daa am la ndax moom ni ko waxee dañoo bokk lépp waaye li ñu bokk bokk lépp itam Sëriñ Tuubaa ji mooy li ëpp solo ñu door bokkaat liñ bokk muy ñaari wet yëpp waaye loolu lépp nag dañoo bokk bëgg-bëgg muy sëñ bi te loolu mooy li ko gën a dëgëral kon moom di su ko sant di su gërëm Euh, ndax lii suñu Moussa Diatar wax léegi suñu Saliou ñu wax ko léegi yóbbaale na lépp waaye euh, da di ne faaw seere léeg-léeg day baax Serigne Saliou Serigne Hamsa di suñu doom dégg nañ béy yi nga xam ne wax na ko moo tax sama xel dem ci gën sànni ci ay kàddu ndax yéemaat Serigne Touba xam ne mbirum Serigne Touba lépp rek ku ci xalaat. mu ñoo la nga di ko setantal sam xel day gën a dal ndax ñoom ñii ñoo leen jur ñu suñu doom waaye te boo déggee béy di fi sa waaye léegi fi sansa kon da xam ne suñ moo lu gën a mujj rek pàggu defam foofu lay gën a sore muy muy lu sori loo xam ne kuy xalaat day gën a dal sam xel te loolu waxtu ne dama koy seere ci njaboot yëpp nag ci njaboot suñu tubaab gi lu gën mujj rek. ak pëstef gën a bëgg Sëriñ Tuubaa gën a gën a doyloo Sëriñ Tuubaa gën a soobu ci yoonu Sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ bi ñu ngi lay sant cant gi nag eh, daa bari ndax liñ bokk jërul dellusiwaat ndax adduna sépp xam nañ ko waaye moom wàccoo nag ñun moom mii may waxal mm-hmm. ndax li ciy firnde dëkk bi mu njëkk a sanc fa mu njëkk a daara mooy ndokk man la fa njëkk a sancal daara mu jàkkaarloo këram loolu boo sanc guma sama kër gi kon yàgg na ba ca desaar it bopp si la ñaar ñëpp fa lañ cosaanoo ci mbaakoon waaye dëkk ba defar fa kër defar fa daara alxaan yóbbu fa ay gone def ko def fa kër jox ko ko mu jaar kër gi joxaat ma ko <laughs> boo sëncaguma sama daara jële mooy mooy ab dëkk moom ak mbooloo ma fa ginnaaw boo ko Sëñ Tuubaa defalee Sëñ Gaawaan li ma ko diggaat bëriwu ci yoon yi xam naa ñàkkut nag kon moom wa yuuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun loolu lay dund ci sama digg moom mooy lu mu doon de mën la ko gën a yéene loolu xam naa ko te eh, caméra bi bii fi ñëw sax daanaka wóoyu foo war ñëw ndax leneen ko yëkkati woon yeneen yitte ko yëkkati woon mu tombe ci mu far ko jëlaale waaye lii sax eh, li ñuy wax eh, jël sa ñuy wax suun suun daaxiliya la waaye comme yàlla def na mu tombe nag kon day mel ne loolu suñu borom li ñuy wax sut fa amut di ngeen tuddee asaar ci ci tubaab amut doona suñu borom xam la tax mu def ko kon dañuy sant bu baax a baax ci jataay bi di ko bëggee ngir xam ne koo xam ne boo ko wooyu mu ñëw boo jugee yëkkati sa kàddu boo jugee yëkkati sa tànk ñëw euh, seet si koy da ngay nemmeeku ci anam tooge ndax foofu la ñu féete lépp lu fi ma saxew yéen xam ngeen ko mm-hmm. xëy na xanaa ñi ñi xamut waaye lu ma saxew fii rek lu ma doon moo moo koy jiite moo fi jëkk moo fi mujj mm-hmm. loolu mooy mooy mooy suñu diggante te dara mos lépp lépp rafet mm-hmm. euh, cër bi ma sédd ci boppam nag ginnaaw bi liñ bokk jàllee mooy tax sax léeg-léeg ma di ko daw ndax dama naan si ayib ku ko topp ci pëstéefam ak ni muy doxee boo yeexee mën na laa gaañ ndax moom ku mu gis rek jàpp na ne boo eh, day xeeñ du Sëriñ Tuubaa ci yow ñu itam noonu la ñuy def ci moom mooy tax sax may taayal ci ab jataayam ndax ni mu lay def day ëpp ba doo xamante nooy def kon dañ koy sant bu baax di fu gërëm di ko ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa ndax pëstéef bii ngeen xam ci moom. doonut lu yees ci moom man ba ma ko xamee mu nekk Égypte di fi jàng di ñëw vacances boo gone gu tuuti laa nekk ci mission bi waaye xam bi moo ko si ibi mu tey wax yi ngeen dégg mu di ko wax ci Pastef it doyloo Sëñ Tuubaa ak gëm koog yem ci sëñ bi tàmbale ci Sëñ Tuubaa yem ci Sëñ Tuubaa ndax loolu bari nañu koy wax waaye moom da koy dund naka jekk bu ma juumut 98 wala 99 wala du ko sori daal waaye ba muy juum ca daddi ci la xëy jékki-jékki doog ci ne ma bàyyi naa tukki te boobu tukki bi yàlla defaloon na ko fa taw fii wax nit ñi bëgg ko lool xam naa ci dara daanañ fa daje waaye daa xëy doogu rek ne dootuma génn Tuuba te boobu yombut ndax ba ba mu koy dogu bàyyiwut ba jekk ko door koo def daa dogu rek Sëñ Tuuba fekk si ko ci moo tax Sëñ Tuuba lépp lu ngeen gis mu defal ko nit rek am na lu ko jiitu. kon dafa doog jaayante. moo tax Sëñ di ko liggéeyloo li mu koy liggéeyloo. loola itam kilifaam yëpp noonu la doon dundee ñoom ñu ngi koy waxtaan léegi maag Sëñ Matar ak moom ci Sëriñ Saliou xamoon naa ci dara. kilifaam yëpp itam noonu lay dundee ñoom. tam lay Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké Falilou noonu la daan doxee moom Cheikh Mouhamadou Lamine Bara naa ba tàyyi mu sant ko fu mu néewtu kii fi nekkal Sëriñ Fallu Sëriñ Abu mu ma gisee bu jàmmanteeg moom ba noppi li may njëkk wax sa mbokk mi damaa ngi koy sant gërëm ndax ma fi ma nekk di Sëriñ Fallu de kenn ko ci man ci taxawaay fu ma gisee ma njëkk wax kon loolu dara gënu kii fi nekkal Sëriñ Tuubaa di Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax moom yàlla ko defal tawfeex ni nit ñi def sax di xalaat ni Cheikh mun Mountakha daa doxee kilifaam danaa koy netti lu bare bare ndax Cheikh Mouhamadou baa Bara nekk na fi Cheikh Sidi Moukhtar nekk fi mu nekk seen jëwriñ mën na ji seen diggante waaye mosuma dégg mu am xalaat luñ ko wax rek ba booba man sax xamuma ne sëñ bi am na xalaati boppam bi mu doonee sëñ Tuubaa rek laa door a gis xam ne kenn ëpp koy xalaat waaye moom mii gis naa ne loolu dund diggam ak moom loolu xas xam ne ji sëñ bi la jógee dooru ci xalaat te loolu ñëpp noonu la war a def. kon loolu wetti ne Cheikh Mouhamadou Mountakha ci liggéey bi ndax loolu dama cee mat seere ndax sëriñ bi wax na ma ko ay yoon fu mu néewut ne moom moom yàlla da ko dimbale ndax ndimbali mooy eh, eh, Sëriñ Tuubaa yéene ko ci boppam. Mm-hmm. te Cheikh Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Cheikh mu suñu Saliou neen da ko yàlla suñu borom bu la naree dimbale dalay yee ci mm-hmm. waaye Sëriñ Tuubaa képp ku mu bëgg a dimbale dalay defal positif ndax positif moom yàlla da ko mën a faggu ak sëñ bi waaye kenn mënu ko fàggul sa ndax ku bëgg am positif te positif bi ne wut ci doo ko mën a am waaye comme defal positif yi kon wàccoon ak kon liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey sëñ Tuubaa te xam ne ñëpp xam ne itam ñëpp gëm ne sëñ Tuubaa nangu na ko ndax fi ma ko tegit mooy xoli taalibe yi te sëñ Saliou daa wax ne xolu taalibe yi jëm rek fa la xolu sëñ bi jëm kon moo tax ma gëm na Sëriñ Tuubaa nangu ko kon dañ koy ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa mooy kuréel gi mu jiite di daayira di Tuubaa ci kanam dañuy ñaan moo moom mboolem ñu ngi ko ànd ñëpp nag di boolem positif jaayante dogo ngir liggéeyal Sëriñ Tuubaa jëm ci Sëriñ Tuubaa la leen sëñ bi wax rek yàlla bu ñu amum ndokk yàlla nañ àgg fa ñu jëm te rafet nañ jort bu baax a baax ci ne yàlla daal leen ci dimbale ndax li tax mooy keroog bañ ko susee bañ ko sosee booba demaguñ ci Cheikh Cheikh Sidi Moussa bu ma jumut ba ñëwee fekk ma ci kër Sëriñ Tuubaa ga dama leen waxoon ne leen seen daayira bi ni ñëpp ci am yaakaar kon nag li ngeen moytu nga xam ne daayira bu ma a yàqu gis naa ne moo ko yàq mooy dugal ci àdduna wala bakkan wala politique bu ngeen ci mucceer dina àgg yàlla dimbali na leen nag ndax yi fi jaar bari na te àdduna waxtu seytaane moom shawala lahum sheytaan wa amla lahum waxtu wu ne mu ngi jaxase xel yi di la xalaat loo di la gis loolu wërta gis waaye yàlla ngi leen dimbale te yàlla leen gën a ci barke Sëriñ Tuubaa ba yoon wi ñu tege nga xam ne kenn amul loo ci mën a sikkal mooy tàmbale ci liggéey Sëriñ Tuubaa yam ci liggéey Sëriñ Tuubaa yàlla leen Sëriñ Tuubaa gën a dimbale ba yéene ji yéene ba koo jëfar Sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ndax dëkk bi moom Sëriñ Tuubaa noppi na ci ñaan na suñu borom lépp ba suñu may na ko ku am tawféex rek mooy mu def loola ci dara waaye Sëriñ Tuubaa moom mbiram noppi na ci lépp liñ doon nett léegi tama déggee woon ko ci euh, sëriñ bi Sëriñ Saliou muy loo xam ne doy na sëkki ab ab ndax ngir xam ne Sëriñ Tuubaa lu ko nit mën a jëfal loola euh, fekk na moo la kàtt jox kàttanu nga mën koo jëf kon tawféex ji mooy kàttan bi mu la may nga mën koo jëf dafa am génn kilifa gu mag goo xam ne dafa waxoon ne dafa daa bëgg dajale sëñ bi ak addi joxoon kenn mësu ko ko jox boo sëñ bi nga gànnaar mu dajale dajale dajale lu bari lu son def mbay la mu war a def lépp mu def ko mu dajale ko ma juróom-ñetti junni mu fekk sëriñ bi gànnaar ba mu dikkee ak si siyaare sëriñ bi wax ko li ko yëkkate ndax dana daa bëggoon a jox sëñ bi addi ju kenn mësu jox daal di wax sëriñ bi ne ko addee ji de juróom-ñetti junni la daal wax lim bi. Mm-hmm. sëriñ bi ko baax na sëriñ bi nekk ci ay mm-hmm. ci jaamu yàlla yeeg ibaadaat mm-hmm. na suuti ndaw agsi bàyyi ko ci sëriñ Manumbe sëriñ bi sëriñ bi daal laaj ne ana ndaw la bàyyi bàyyi ko ci Ahmadu Ndumbe ñu waxu ñëw. kenn di woon xaalis mu ko ànd la moom ngeen dem ci kees gi ngeen ngeen wàññi ba xam di ko sëriñ Manumbe yónni lu mu doon. sëñ bi sa xool lu doon te kooku it xamul lu doon. xamul lu doon mu daal dem ànd ak kooka dem ba ci biir kees ga ñu wàññi ko muy ñaar fukki junni mu dellusiwaat kon Sëñ Tuubaa wan na ko ne lu fi nit indi rek nit indi na fi lu ko moo tax genn gàmmu ci njaareem lu mel noonu loolu loolu lay nuru moom daa wax ne daa bëgg delloo Sëñ Tuubaa njukkal. ci togg ay rey ay nag yu bari ak i xar ne daa bëggee teral gane Sëriñ Tuubaa yëpp ci gàmbu gi sonn ci lool nga xam ne taraange fu lañ ko yóbbu ba noppee nag ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko ana loo jubloon mu ne ko xanaa jéem la delloon njukkal sëñ bi ne ko mënu leen ko ne ko kon yàq nga si jëf ndax mënu leen ko ndax eh, teraanga ji li muy rëy maa tax ngeen mën ko kon ana ana cant gu mooy ngeen yëg na maa ko defal mu dëppoog la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne Serigne Touba lim ma defal dafa rëy loolu ba xamul lu ma koy sante ndax lu lépp lu may yëkkati lu mu rëy rëy ba nar ko ko sante ma xool ko lépp di yëfam ma ma ne naa ko ci bëggam kon nag dañuy ñaan rek ci barkeb Serigne Touba barkeb way juróom wu tedd yi nga xam ne ñëpp xam nañu xaasam ci Serigne Touba démb rek ñu ngi koy waxtaane ñu ngi koy nettali fii ndax ñu xam ne réew mii moom la sëriñ bi waxoon rek ba mu wàccee ba mu wàccee ca batu ba yëkkati loxo yi ne lépp li ngeen fi séentee xam ne loxo su si moo sëriñ son bi daana ko nettali lu bari sëriñ Saliou nee ca gànnaar népp ne lu ngeen fi séen rek loxo bii loxo loxo bu tuut bii moo ko fa def daan waaye kooku ci nattab la ñàkk ko léegi kon si moom lu waaye am rek moo la ko defal euh, Cheikh Mahamadou Fadil moom may nettin rek ci xew-xew yu fi xewoon ci président bi fi newoon di président Senghor boo dem ne ba ñàkk réew mi ñu ngi koy waxtaan fi démb waxtu yi démb jàpp demoon na ba jàpp ne ñàkk réew mi dem na ba jàpp ne ñàkk réew mi xaaju guddi mu ñëw fëgg si bu Bousso suñu Ousmane dem ci siñ bi yëgal ko ko fekk siñ bi fàttu na. Mm-hmm. mu ne ko comme doom mu ko Léopold mm-hmm. mu ne ko mu ko nekku na ñëw bi mu dikkee Senghor wax sëñ Fallou yëf yi ba xamal ko ne ko daa ñàkk na nguur gi daanaka. Mm-hmm. Cheikh Modou la mu doon jëfandikoo ci Darou Manane. mos ngeen dégg si Modou nettali ko. sëñ Cheikh Modou Farid ne ko xaddu dem Senghor boo tiit na ne ko xam naa ne faaw nga jaar feneen fu bukkute fa nga daa jaar naa yëf yi moom de jeex na ba noppi moo Modou Farid ci xaaju guddi gi mu ànd ak ba ci barabu suñ Tuubaa bañ demee ñu ubbi barab bi mu bi ne ko waxal li nga bëgg daal la ci fekk si Senghor wax la mu bëgg bañ dëppee Sëñ Ousmane nee na bañ tolloog mbalka mi ne ci buñu ko Cheikh Modou Fadel eh, bi mu tolloo si suñ fallu Cheikh Modou jël loxoom daal di daal daal di jël loxoom naan ci naan ci benn gox. fekk Senghor a ngi ci ginnaawam Senghor toppandoo ko def ko. bi mu jàll mu ne ko dama la doon seetlu rek ba boo ko defutoon rek ma xam ne li nga bëgg doo ko am. ci suba sa suba sa bañ xëyee rek. ci lañ wax ne yëf yi jeex na Senghor lépp dellusiwaat na ci loxo. doomam ma ngi toog di sëñ Fallou mm-hmm. kon seere la ci am solo mooy seere soxna ku ko dégg xam ne dëgg la kon ñi ngi ñaan ci barke Sëñ Tuubaa yal ñu euh, Sëriñ Tuubaa dimbale ndax Sëriñ Tuubaa moom fàggu na lépp boo dee xool xasaay di lépp fàggu na ko ci li nga gis loo gis yoon wi rek boo dee jàng biir xasida da nga ko ci gis mm-hmm. waj'al quluubana ala tawaadudi bila tanaazuin wala taxaasudi mm-hmm. wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tanaafuri xataa nasira muslimin xaasiin ndax xam na ne loolu boo mu duñ nekk dëgg-dëgg jullit kon loolu lépp fàgguwaat na ko ci biiru njabootam duñ xëccoo duñ ŋaayoo lu ci waay am sa morom la ko lu ci bëgg sa morom loolu la ñu Sëriñ Tuubaa defal loolu nag mooy àjjanay adduna di àjjanay ëllëg la sëriñ Abdullahi borom dëgg daa wax ne jannati ilal jannati jannati ilal jannati loolu lañ Sëriñ Tuubaa defal am koo xam ko soble la xam nga nit ñi niñ mën a dingate rek mel na ko xaw a jaaxle mu ne ko wali man xaafa maqaamar bihi jannataani asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu